leen nuyu bu baax a baax di leen ziar suñu mbokki internet yi jotaayu làmb ñu dalal tey euh, Tapha Gueye numéro 2 pour seq ak moom waxtaan Tapha maa leen nuyu di la ziar waaw maa ngi lay ziar kat ab euh, euh, <laughs> ñu émission quoi waaw pour ñu def émission hmm. préparation bi waaw maa ngi ci préparation combat bi le le 5 mai bi le 5 mai bi ah. waaw <laughs> gis foofu combat boobu wax dëgg yàlla euh, euh, euh, combat bu doy waar la nag et bu bëri coow wa xam nga làmb moom làmb moom amul xeeb xale amul xeeb mag waaw moom mu ngi koy préparé à côté man maa ngi koy préparé sama côté di xaar la 5 mai bi jot. waaw parce que boo yooyee bul dara sax dañu am kàddu maanaam boo déggee dañu am kàddu maanaam fu ñu waxee nit ñi leen déglu daal. waaw après que loolu nag yàlla na ko jàppale ci combat bi. ba mu ñëw am kattan am jom am jom bu bëri si waaw am jom bu bëri si quoi. Hmm. macha wax nga ko léegi 5 mais boobu ci la Sa Thiès Eumeu Sène nar a bëri ci lañ nar a waxtaan waaye tamit Balla Gaye Tapha Tine ci lañ nar a def face à face euh, Balla Gaye nu gisee revanche bi. waa Balla Gaye Tapha xam nga Balla Gaye dafa daan Tapha Tine Tapha Tine loolu métti ko lool lool lool ko Balla Gaye daanee ne ko ndax yaa ndax yaa ngi may gis xoolul Balla nax ko daan ko. loolu mystique la wala wala geste la. ah xaw ma geste làmb la daal làmb dafa bëri ay façon ku si nekk ak sa secteur la mm-hmm. waaye Tapha loolu neexu ko ndax Tapha Tine ku ne xool Tapha Tine euh, euh, ni mu toll mm-hmm. ku xool Tapha bi ci mm-hmm. xool Tapha bi ci wàllu bari li mu def ci làmb ah combat boobu ni ko bàll daal da koo nax da koo nax boo xamante ni ci biir bari la ko naxee ndax làmb naxante la te bàll foofu li mu andi. xeex na ñaari yoon ci kaw mais dafa nag Tapha Tine daan ko foofu Tapha xanaa ne moom ak li mu wane fan yii xanaa nax boobu noonu mu ngi koy bàyyi xel wala bu ñëwaatee Balla fa lay jaar xanaa loolu xalaat xalaatu ko non Balla jaaraatee foofu mooy Tapha Tine dafa yëpp <laughs> amateur yi waaw parce que léegi diggante song song yooyu noonu. nan ko naxee nan la ko naxee ci combat euh, mu ko naxee mooy da ko tàllal loxoom dóor ko gauche dawaat dóoraat ko mel ni kuy xeexee moom dóoraat ko dóoraat ko gauche dóoraat goos daw arrière. xàcciwaat ñëw tafaatin di fayu ci kaw mu jaar suuf nappaaju daan ñaari tànk yi daan ko mu toog mbëgg ko kon combat bi di ñëw nii tafaatin warfu combat boobu rek war na ko jàngatee combat ba waaw te Balla gëm naa ne non xam naa ne ay système Balla rek ndax Balla ma dafa doy waar Balla ku xam na ne bala gay dafa doy waar waaye xaw ma nag ndax combat bi nii moom ah tafaatin gis naa mu yenn pono boo xamante nii maag dix personnes ante nañ ko di wëndeel moom waaw loolu nag moom loolu nag def a baax ci ci mbër parce que parce que tamit li mu tegle woon noonu wane ne entraînement boo xam li mu waneegum moom Tapha Tine ah li mu waneegum ci entraînement nii gis wax dëgg yàlla euh, doy na waar moom doy na waar moom ci ci làmb ndax man sax xam naa ne man su ma amatee combat fa laay dem ci kii waa waa tubaab bi nu mu tudd sax Eric Favre. Eric Favre il faut ma éviter ak la xaw ma Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire yooyu Côte d'Ivoire xam naa moom moo tax yàlla entraînement yi baax na parce naa mu dugg ci bi génn. kon mi ngi def musculation mu ngi def piscine mi ngi def natation kon kon Tapha Tine mi ngi pare combat bi carrément waaw moom combat moom mu ngi koy préparé moom. ko gisee mu génn loo gis. da nga gisee gis mu dugg ci piscine ba génn wane xaaj wanewul lépp de cat la wane wanewul carrément taf Tapha Tine muy nax gars yi de li bu si jógoon ñëpp dinañ gis ne bi peg bi gis abdominaux yi yëpp wane mais dafa wane dóoba yii la wane feeñ tuuti si ndox bi ne nii génn. gars yi ni la ida kon nag am na lu des li des noonu nag moom Tapha Tine moom la ñu bëgg nga wan ñu ko xanaa jour combat bi di ñu ko wan waaw parce que tam entraînement du ci kaw rek ci suuf la ak ci kaw suuf la ak ci kaw ak ci biir bi sama xel xam naa ne mi ngi mi mi ngi entraîné vivacité mi ngi koy entraîné mi ngi entraîné gaaw mi ngi entraîné parce que boo entraîné par musculation def def natation loolu day tax da ngay délassé wu da ngay délaché wu quoi da ngay délaché wu gëm naa ne eh, combat bu combat mag a mag a mag combat bu combat bu doole Balla mu fekkee ne dafa yaakaar ne ni mu naxewoon Tapha Tine noonu la koy naxaatee combat bi Balla ma xam ne Balla c'est un génie Balla ni mu naxoon Tapha Tine daan ko ñëwaat defaat do ma xam ne kon Balla c'est un génie Tapha Tine pare na jamono ñu toll nii. kon da nga gis ne Balla pour mu nax ci combat bi du yomb. ah du yomb de. non non non parce que Tapha ni ko Balla naxee woon dañ ko koo xasee. dañ ko koo xase ah, xam nga mbër xam nga mbër luñ la xase ah, après boo ñëwaatee da ngay xar benn xartu bi mais nag bu mu tax nag mu ñëw xar ci ko Balla Gaye Balla Gaye ndaanaan la de bu ñu dégg wax ji rek na day xar ci ko Balla Gaye Balla Gaye ku xar ci moom yaa ngi ci erreur garde am na lu ko teel mi ngi wane waaye jour combat boobu ah man dox wax dëgg yàlla combat boobu moom ko fa dëgg naa massa waaw ko fa dëgg naa massa ndax ko du combat bi moom ndax ëm mm-hmm. ak saa kees sa laaj nga sànq waaw mais Tapha si ci boppam nii c'est la famille même famille la famille làmb la saa kees rek Balla Gaye dañuy bëri Eumeu Sène Tapha Tine si ñoom nañ dajawaat sax seen biir mën nañ dajawaat seen biir ku si daaloon mbër bi boo nga bàyyi ci xel xam nga la làmb la quoi la boo xamante ne amateur bëgg nañ ko te soxla nañ fa bëri nag soxla nañ fa bëri ndax combat yooyu du question lañ leen fay xaaj rek ñu ñëw rek def lu leen neex. premier combat Eh, war na arrière ba bàll bu na bërxë da taxaw ne xool ko mais mbër fa nga arrière la bokk mais boo taxawee rek mën na la def nam la defoon mën na la ko defaat amaana song boobu préfet bu arrière woon bàll bàll lu jot tànk yi waaye dëggal boppam moo moo tax loolu da ko nax moo tax mën a làmb dafa bëri ay critères critères yi si nekk ñoo bari dafa am critères yoo xamante ne daf daf si nekk daal moo tax man la combat bu combat bu neex la doon te Tapha Tine nga xam ne Balla du mbër mu ndaw mbër bu mag la daa mën ne bor bu ne daa mën ne fu ne waaw musique beeg tactique beeg jàppale yeeg yooyu yëpp dafa bokk ci làmb de pression bi yëpp dafa nelaw bi yëpp làmb xaaral mën nga entraîner lépp lépp ñëw ba jour làmb ji euh, doo nelaw doo nelaw de man nag bokk ko mag mbëri ndax man dama nelaw damay xob di xool di ba fajar <laughs> man moom xam naa la gars yi moom got dafa am lu moom moo ñaale waaye man moom gars yi gars yi parce que làmb dafa am nelaw dormir tranquille nelaw lekk ba suur nelaw noppalu ko làmb loolu laaj man aw ma jàppale rek mais su ma jàppale carrément non mbër yi naa leen def loo xamante ci làmb ji nii mën naa leen def lu garaaw. billaay wala talaay vivacité waaw yàlla def na ma ko. waaw euh, yaa ngi wax léegi Balla pour mu ndax Tafatine mais Tafatine lan la mën a ndaxee Balla ci combat bi. ah mais loolu boo ko waxee da ngay dugg seen biir bëri ngay dugg te boo duggee seen biir bëri ku si nekk xam nga ñoom ñaar samay xarit lañ Tafatine sama xarit la Tari sama xarit la <laughs> non mais mais kii boo duggee ci biir bëri bi rek mooy am ñoo xam ne duñ bëgg loolu quoi ndax làmb dama la jox critère dama ne la dama ne la Tapha Tine préparé na Balla pour xool nan la ko daanee mais li mu nii mën na daan ku dul Balla Tapha boo waxee lim koy lim lim mën a naxee Balla wax nga léegi du ko Balla mën a naxee mais boo waxee li ko Tapha Tine mën a naxee c'est pas forcément que loolu loolu la ñu appliqué ñoom. ah mën nañu wax dafa garaaw de. waaw <laughs> samay wax dafa garaaw de lim mën a naxee Balla daal mooy mooy mu am daal droite boo xamante ni. fu bàllu na bërxit bu na bërxit mu dajeeg moom ci duraat boobu loolooy wàcc wàññi ko bi bàll bu jër ñaari duraat tafaatin dootu ñëw day taxaw non foog nga réglé ko mu réglé ba réglé ba nga xam ne réglé la yow nga xool lan ngay teg foofu ci duraat yooyu pour pour mën ko di euh, déséquilibré la ngay xamalan xool noo bëree bëri yëpp ko yëgali ndax du sa xam nga mais tafaatin moom bu xoolee bàll mu bàll bu la mu dajeeg moom mais moom ay coup da ko sàpp moom moom da nga koy jox sax muy ñëw làmb ji moom kenn mënu la ko expliquer dañuy wax nii rek xanaa pour neexal amateur yeeg euh, fan si nekk diaspora beeg en guerre la États-Unis United States waa xam nga gars yi la ñuy waxtaanee rek mais mais làmb moom da ngay wax ne mbër mën naa ñëw soo andi leneen mais waaw waaw que euh, li ma la wax rek xeex bi moom mënta ñàkk ci combat boobu mënta ñàkk seen xeex dafa ñëpp uppercut lañuy lañuy lañuy xeexee na droite Tapha Tine na droite mais xam naa nga bañ a da nga a génne rek mais am na droite am na gauche am na gauche waaw waaw moo tax ma ne làmb eh, Balla daal xam naa ne eh, ni mu bëriwoon ak Tapha Tine bu ko bëriwaat Tapha Tine mu xam ne mu ngi erreur juum na foofu jee mënoo ko bëriwaat Tapha Tine tey changé loolu leen lay andi man man damay ragal sax arbitre na peut-être Tapha Tine dal ci kawam noonu laay ragal waaw ndax ndax Balla mën na am confiance eh, Tapha Tine mën na am confiance li bàyyi li booy ñaar daan kii ba Balla Gaye mën na am confiance arbitre mën na pare rek. tafaatin dal ca ko andil ko loo xamante ni Balla xalaatu woon ci àddinaam laa mu dafa yéeme de ndax li tax li ma jaaxal ba jaaxal tafaatin MMA ba muy def nee na ko du ko bàyyi Cameroun si jaaxal man waaye Balla ku ne xam na ne eh, eh, mbër la te ndaanaan la xam naa daal làmb nax ko ci yombul moo tax xam naa ne foog foog daal dina dana neex dana yaatu. combat bi waaw. jàpp yoo jaay waay combat bi bu ñu jàppante bëri day feeñ jàppante. Tapha na jéem ma bëri Tapha Tine bu leen di jàppante Balla Balla day bëri ci kawam Tapha Tine bu jàppante Balla ba ñu bëri. taxaw jàppante taxaw eh, eh, eh, sa day bëri ci kawam waaw waaw na bëri ci kawam def loo xam dafa Balla dafa mën yooyu bëri dugg ci poxtaan bi génn ak yooyu waaw Tapha Tine nag na jàng moom tamit bu génnee ko da ko jàngee ne Balla day day de waaw day bëri moom Balla moom day bëri moom Tapha Tine moom xanaa jom ak ful la foro teg tar ndax laa ma jot yomb. war bu ne par moom làmb jooju moom làmb jooju moom ku lox la yóbbu nee ko yoo xamoo lamb waaw tafatin waaw mét tafatin ci Balla gën a métti ndax moo ko daanoon mbër boo daanoon bii ba nga sóor ko bu ñëwaat <laughs> làmb lool la nag. mais ku ñu lu mu dina am la yàqal ju bëri ci sa carrière. xam nga xam nga boo di gisee làmb ji neex làmb dafa ànd ak Balla Gaye li def ni day neex làmb ndax dafa ànd ak revanche. revanche waaw waaw nga daan ma may la revanche loolu loolu loolu dafa ne day dundal làmb mais am na mbër yoo xamante ni revanche amuñu ko ba tey revanche dafa neex ci làmb làmb bu fekkoon ne mbëri waaw dafa neex revanche revanche dafa neex daan mbër ba pare jox ko revanche dafa neex waaw xam nga tamit loolu dafa neex di am mooy ne wax dëgg yàlla bëgg naa ah kan ah xam mais mais nga jox revanche ndax mooy mooy mooy cadre làmb cadre droit bu dëgg dëgg dëgg mën nga daan ko nga dem ay 6 mois 7 mois 1 an war nga koo may revanche Balla Gaye nag li mu def noonu loolu lay dundal làmb Balla lépp lu muy def rek day dundal làmb xoolal li mu defati may revanche Tapha Tine Tapha Tine may ko revanche dafa wóorul mais mu def ko <laughs> ah ah ah nañu waxante làmb rek. làmb silence silence silence bi mu nekk moom Balla lan la si jublu ah, bu silence ñu xam ñu la ko est-ce que wér nga. Ah. Balla ñoom na silence. silence bëri booy mu daan ah loolu kooku kooku nañ xool ndax Balla Gaye la wala du Balla Gaye Boy Niang yow teg nga daw jël tànk Boy Niang bëreeg yow loo xamante ni yow yaa ko doon def non boo silence gars yi duñ la naan kii sa kii sa mbor non bu bu Balla Gaye bi ñëwaat moom xam naa li muy andi moom xam man man gisuma waaye dina doy waar na li ko war non état de forme ñeme na ko mu ñandi UNICEF bari xam naa la foofu yu bari dañ denc ndax ndax ndax ndax day day ci ay fenn demee mais daal làmb ji moom. ci ko ci Balla Gaye a métti ci yow. non non ndax loolu ndax Tapha am na fu mu jógee am nay victoire. am nay victoire waaw. waaw ñaata. waaw Bombardier ak Eumeu waaw. ci giri la daan ñëw bëreeg boo ñaa boo ñaa waaw waaw xool loolu moo tax raam bi mu ngi koy bëgg wàcc tuuti mu ngi bëgg wàcc raam yi. parce que su wàccee raami rek Tapha Tine am na fu mën na bu ko neexee sama doomu rek Balla te war na am revanche amaat revanche ba am buña te seet ko ba gars du ci doyal xam nga boobu voilà voilà noonu la ñuy ci euh, euh, hmm? Sa Thiès ak Eumeu Sa Thiès Eumeu la ñuy jeexalee waaw ñaari mbër yu niroo ci état de forme en même temps boo ko xaw a niroo style lu bëri <laughs> waaw moom kenn du ko wax ëm moom chaque jour mi ngi entraîné ëm Eumeu Sène chaque jour que jëfee mi ngi entraîné waaw mbër la boo xamante ni ak ndax moo gën a naqaree bëre ci àdduna. mooy waaw dem na trois fois champion d'Afrique dem na ay champion d'Afrique yu bëri min na géew te daanaan la du mbëri tambar tambar tambar yi am na hygiène de vie day noppalu ko waaw mi ngi am jàmm moo ci moom bi am bi dallu ni noppalu dem jàmm waaw xam nga xale yi dañuy am coup de foudre coup de foudre moom bis bu ko andee si Eumeu daal jël bu gaaw. waaw waaw bu fekkee ne revanche la jël si li ma la waxoon ci booy Niang Modou Lo laa lay wax tey <laughs> même même loolu du dañ bu bu ne sama mag laa jël si revanche bu ñëwee di ëmb dina daan ñibbi muy doog a xam ne daanu na kenn du ko cax-caxate ñun daal bu ñu xoolee amateur yu bëri dañ naan dañoo respect ci seen face à face te combat bi noonu la combat bi a déroulé. loolu bu amee loolu kan kan moo ci avantage. déedéet déedéet dañuy naxante. ku ci nekk xam nga làmb wax ay nax la di waxante naa ñeexee de loolu du amul loolu ay naxante la ñoom dañuy naxante seen biir ëmb ngi ree di naxante kee di ree di nax naxante la wax yooyu wax wax signature du wax de wax signature mbër moo ko jàppee dama koy def bu ñëwee ñu door ko mu na nii nangam nangam su ma la jàppee dama lay daan nga ñëw yow ñu daan kon loolu du du du wax boo ne réalité la réalité ba mooy géew ba ko Sa Thiès bàyyee Eumeu Sène mu calme noonu nekk ci euh, zone de confort calme est mu am ci moom mu mu bëri ak moom dina yomb. Eh, eh, xam naa ne pour yëngal Eumeu Sène moom yombul xam nga nag saa lu mu andi waaye saa xam lu andi waaye ëm daanam la te saa xale la dafa am mu soxla ci ci ci carrière am saa dafa soxla bëri ak Eumeu daan ko dem jëli Modou loo yooyu yëpp da ko arrangé waaye tey boo ko am daanee mooy loolu de waaw lamb critère dafa bari de mag ñi mag ñi am nañ fu lay bëri de xaw ma xale yi. waaw jamono ji mag ñi moom am nañ fu lay bëri xam nga xale yi nag waaw bu saa xam moom day day yëkkat si ko teeri rek rek dem loolu bu ko defee ëmb du baax ci saa xanaa xanaa saa xanaa am na conseil ci li ma yaakaar man yu bëri yooyu jeex na si làmb de. mais ñu ko daan ñëpp dañ ko tax dañu taxaw déglu ko xaar ko xaar ko mu ñëw demuñu rek dal ci kawam. non non mais xam nga dañoo tolloo dañoo tolloo te saa dàqul bëri ëmb seen da Eumeu Sène da dàqul bëri bari kees waaye li ñuy xalaat kañ ca kattan ba déplacement ba ak ba ak placement ba ak en emplacement ba fa ngay taxaw <laughs> combat yi foofu la nekk jamono ji combat yi foofu la toll ay temps lépp baax na entraînement yi forme bu rafet lépp baax na mais déplacement bi ak temps a bi ak temps fa ngay taxaw pour finir combat bi loolu moo am solo. taay Eumeu Sène du du pose problème sax. déedéet taay bi ci la nekk a des arènes di foo ne. Sa Thiès laa dina posé problème Sa Thiès nag ndax Sa Thiès balam boobu mënu ko bal Eumeu Sène laali ko mënu nekk ndax taay ba te Eumeu boo ko balee mën boo dof dof loo bu la mbotee maanaam stade bi mën na mab dafa mën loolu te te man man gisuma gisuma Sa Thiès daw jël tànk Eumeu Sène nii teeb téye ko gisuma loolu ci ko Eumeu a ah xaw ma de Eumeu Sène di xaw ma lu muy andi waaye jël tànk moom da koy def mais kenn xamul ban heure la koy defee moo tax lamb yi dafa jaxasoo lamb yi am léegi ar bu naax dama yaakaar dañuy xaru rek lamb yu garaaw lañ teg nii ah lambu yu garaaw rek lañ teg ar bu naax yàlla na yàlla defal jàmm lii mooy lamb ñun dañu bëgg lamb ju neex lamb xam nga lamb yi fa nekk xam nga ne saakees yow nit ñi nit ñi dañ ko bëgg bëgg saakees bëgg ama seen ñaar ñooñu bu ñu waree bëre te ñun ñaar dañ xaw a bokk ay supporters dañ xaw a bokk ay supporters tu somme rek buy xe dinañ xeex nag xeex moom dañ ko deful xeex moom amul ñoom ñaar ñëpp laawkat lañ danañ xeex la wax dinañ danañ xeex. continuer wala ñuy xeex dagg xeex bi pare jàppante. Kamba maa la wax loolu wala mu am xeex pare mbas daw jëri naxante voilà jël tànk am na leen lu jël tànk làmb di mën a wax lépp làmb la rek da wax loolu rek pour pour yi mën a xam concentré ci làmb jooju xam na làmb ju mag la waaye xam nga xam nga tam mënoo bàyyi sa bis di wax ci bisu jàmbur bis boobu mën ca laa bokk. man tam foog ma foog loo xamante ni man moom lay yóbbaale ma tamit <laughs> làmb ja ndax Bou Siteu moom làmmiñ bi moom boo ko bàyyi ak bi wax na ba nekk roi des arènes Bou Siteu moom waaw de parle mhm. ah moo lay mooy mooy loolu mooy li ma la man li andi kat gaa gaa yi dinañ ko ah, ko xaar nañ ko xaar li may andi. mais ni muy euh, kii balee loxo yi di ci xabal Sa Thiès mais mais mais bu ko appliquer ci Balla la moo tax mënu ko appliquer ci Balla ko Balla Gaye Sa Thiès ko daax bëri ah loolu mën na ko andi sax ama seen da daa mën loolu nit ki ak mëninam moytul nit ki ak mëninam nit ki ak mëninam da ngay moytu. moytul daal bàyyi ko su mëninam. yéen nit ki mën na mën mën mën saa yi mën damaa ragal de laa am léegi dama ko ragal léegi. fan la ñuy jeexalee ku si nekk lan nga koy digal ci combat bi si côté Sa Thiès. côté Sa Thiès nag bu ñëwee mu xam ne moom mbër mag la te laal na roi des arènes moom laal roi des arènes. kan ah Sa xam nga su ma waxee Sa Thiès wax ci Eumeu Sène day nekk combat bi su nekk da ngay kii làmb daal li ma la ci mën a wax moom li ma la a wax moom bu arbitre na pare da gis combat mais man ma leen conseillé instant bi sama bopp laay conseillé ndax bis boobu laay bëri ndax wax nag barke la mën naa wax rek mu féete ci ñoom man nag ma ñëw ñu daan ma jël bu boo xamante ni mën nañ ma dóor ma daanu sax gars yi ne ay waay Tapha Gueye waay xam nga <laughs> làmb da ngay daw yu bëri <laughs> làmbut laa <laughs> daal làmb daa doyaar de ma la wax rek làmb yu neex la et puis bu ñëwee na def li ko war na def li ko war man ma ñoo def li ma war. waaw présence su présence su Balla keroog parce que day def face à face ci biir géew ba lan def ci Sa Thiès lan la war def ci Sa Thiès ak boobu moom stade bi dana yëngu ndax gars yi nam nañ gi gi jëkk feccam boobu gars yi dañ koy namm moo tax man la bis boobu bis bu ndaw fi Balla war a ñëw Tapha war a ñëw mbaay bool bool rek bu ñëwee làmb ji war naa fees làmb ji du làmb ji du la moo tax ma ne waaye jot wax wax émission waaye yow suma xarit nga waaye combat boobu c'est le meilleur combat de l'année Eumeu Sène Sa Thiès ñu teg ci Balla Gaye Tapha Tine xoolal combat yu métti yooyu wallaahi macha allah lu dara. waaw looy looy looy wax Bou Siteu ñu jaaxlee foofu. Bou Siteu li ma koy wax ne ko Bou Siteu Bou Siteu man amoon loxo yi ma nekkoon. loxo yu tilima tilima tilima tilima loxo yooyu dañ lay gàjjeeg di la matt waaye jamono ji boo déggee élage élage laa koy wax su ma ne élage buggul sax ko tudd télé su ma ne élage dama naan doomu ndey élage doomu ndey Modou dëkk Zac Mbao jabar ji di xaritu mama suma xarit bi mama nga xamante maa ko doon saljum jabaru élage xaritam la élage fu ma fekk si Zac Mbao bi maa ngi moom teraanga la di ma jàppale ci boor bu ne di ma jàppale di ma yokk conseiller parce que ñooñu euh, jeunesse bi lañ ñor euh, âge njëkkumaan du ma ko fàtte waaye El Hadj mention spéciale El di ko sant di ko gërëm di ko woo ci combat bi euh, di woo waa Arbouraax yëpp Malick Malick Mbuub maa ngi ko woo di woo Fallou di woo ñëpp di woo âge njëkkumaan document transit ak document construction lii dafa bokk ci làmb boo gisee yow lii bokk ci làmb Moussa Gueye Moussa Gueye moom wax dëgg yàlla mun ma ko fàtte Moussa Gueye Zac Mbao secrétaire général ONAS suma xarit bi di woo ñëpp di woo waa diaspora di woo waa Malaga sama waa Malaga di woo waa Torrevieja la laa que ki en España siempre no ha ido a mi ese combate yo quiere la gente que vive en España ha ido a mi ese combate es muy importante para mí para luchar parce que combat boobu combat bu mag la combat Eumeu Sène Sa Thiès combat ba combat bu war a génn stade bi midi war na fekk ma dem stade kon boobu di nuyu sama xarit bi nga xamante ni Bekaay Bekaay ma nga ma nga Brésil Bekaay suma xarit bi xam na ni moom day jàpp samay komba di jàpp Babacar États-Unis dongo lañ ko tuddee ma nga États-Unis du nuyu waa unis yëpp waa Baltimore Cincinnati du nii euh, di leen wax nag euh, Pa Morlo kañ ngay dem downtown Pa Morlo ba ma dalay wax maa ngi dem downtown am lu ma dugalal léegi mu ma deux ans Pa Morlo downtown kañ nga jafee dem combat bi la am Boursita boo nga xamante ni Boursita xanaa moom Boursita dafa am ay association yu nekk Espagne yu koy jàppale ay gars yi dajaloo di ko jàppale. di ko pour pour non man dama jommi man booy ta man man mii mënu ma am loolu. waa di sant rek di gërëm ñëpp di gërëm di gërëm grand bàcc. xam ne mooy jëkkëru Endo fii fi ma toog ni grand bàcc gaal waag di gërëm waa gàlle bi di gërëm waa àdduna di gërëm waa zac mbaaw bi nga xamante ni di wax ne eh, eh, Moussa Gueye ak ASC Renaissance maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di di nuyu trois euh, nu koy waxtee Tafa Ba transit rapide du Sénégal sama xarit bi Tafa Ba xam nga ne Tafa Ba yàgg na ak moom yàgg ma man daal li may ma wax moom moom woo naa àdduna bépp woo woo Moussa Gueye woo ñëpp yi nga xamante ni ñu ngi jàpp si Tafa Gueye numéro 2 bëgg nag euh, bu liñ jege émotion bi ñu xam ne combat bi instant bi commencé na métti nii ni ni nii war nañ mën a woote jàpp wala jàpp jàpp am na koo xam ne du ma ko lim xarit la di gërëm euh, euh, Ola Bazoul suma xarit bi yàlla na ko defal jàmm di wax ciao tutti grazie mille fratello so I miss you ma man and United States so don't forget me in the life every time I think you eh Baye so I miss you barke sëñ Bamba mag ndax ndax ndax ndax hélas doomu day Modou Lo la doomu day Modou Lo doomu day Baye Peul la non non help me it's a combat I tell you. macha allah merci Thiam tuuti delloo. macha di la jaajëfal bu di jaajëfal amateur yëpp di leen dig daje beneen ñoon beneen invité ci